mi ngi wax papa As waaye juróom sax nag moo sunnaal sunu su rafet si ndax ñëpp déggoon nañ ci taarix ne moo taxawal euh, gamu bu Nigéria sëñ bi Niass ngi leen nuyu du la leen di fay di leen ndokkeel yéen itam di nuyu téléspectateurs yi ak euh, auditeurs ak auditrices yi rajo yi ak euh, télé yi nga xam ne ñi ngi fii ànd ak ñun di couvrir gàmmu gi euh, di leen dokkeel ci xew-xew bu mag bi nga xam ne comme euh, ni ko suma nijaay sànq waxee rek monsieur Ousmane Cissé euh, fàttali itam màggaay Baay ak itam donn gim donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Nigéria Baay dafay ñëw tumuranke maa ngi wax kerek ci interview bi muy def njëkk def ne bi fii njëkk a ñëw en quarante six moom kenn moo ànd moo jugee Gambi wàcci Ghana jugee Ghana ñëw Lagos jugee Lagos jël saxaar dem Kanu alors que te boobu buur bi moo invité woon gannaaw biñ 1937 ci aji mu insalir doom ci bay invité ko bay ñew quelque temps euh, deuxième guerre mondiale tac 39 45 Pareil, le bay waj ñew fi muy xew xew bu mag man nak euh, yaakar na bañi commencé gamu gi dans les années 80 bubu maa ngi nekkoon étudiant Caire yaakaar naa quatre vingt huit ñëw naa fi ànd ak euh, sëriñ Alaaji Alaaji allah yarhamu mais man dama leen fay bàyyi avant gàmmu gi di ñëw ma continuer dem Caire. mooy tey gën a yaa ngi soog a si Nigéria. maa koy soog a fekkee mais nag bi ma ñëwee dëgg dëgg li ma fi gis man dama jàppoon ma impression li ma jox ma dund ko xam ko. mooy gis gisuma ci xew-xew yi nga xam ne lislaam danañ koy feete bu gën a mag su ma gis loolu mais bi ma ñëwee démb ma gis ne bi ma génnee dëkk bi di dem ci gàmmu gi lu war a tolloog lum néew néew trente kilomètres ma gis ne fépp mbedd mi yëpp yoon wi yëpp mi ngi fees ba ma demee fële man événement bi avant ma fay àgg daanaka dama faa àgg un quart d'heure mu jeex ngir man man ndax amuñ fuñ jaar ma gis ne daal dëgg-dëgg euh, événement bii moom amul benn exageration nag waxuma benn exageration dama yaakaaroon na aj ma lay dajee ci aj moo ëpp gis naa ne li dajee fii moo aj ndax man li ma daw avant may àgg mat na trente mat na trente kilomètres te distance bi may daw màkk di dem diggante Mina ak Arafa ak Musdalifa matut loolu kon ñu ngi sant yàlla itam rek di wax ka ne daal dëgg-dëgg Baay bi fi ñëwoon en quarante six comme ni ko sëñ bi junjee sànq ci waxam bàyyi fi ay exemplaire ci téeréem Kashful Albas borom xam-xam yi liir ko parce que kënu buñ fàtte na centre le centre culturel de l'islam ci Afrique au li ñuy tubaab bi di wax Afrique au sud du Sahara boo demee ay 16e 17 e siècle ba 19 e siècle njënd la ci njënd xam-xam yi nga xam ne nit ñi buñ buggaan jang dañ fi na ñëw moko ko ci Nigeria que nous ak euh, état de Borno bi dend ak euh, Maiduguri daanaka dañ leen a xamoon ak euh, Tumbuktu ci ñu bokk ci centre islamique yi nga xam ne nit ñi bu ñuy sàkku xam-xam dañ fay jub moo tax comme ni ko sëñ bi junjee sànq tariqa tijaan bi fi ñoo fekk na ko fi ba yaakaar naa Aboubacar Atiq kenn la ci muqaddam yi njëkk jàpp ci Baye dafay wax que ne moom bi fi Baye di ñëw ñoom daanaka fekk na lépp luy lijaase ci tariqa bi am nañ ko waaye li leen manqué woon mooy ruuxu ci ijaazaat yooyu waaye fekkoon nañu am lépp waaye Baye moo leen indil meññetam tariqa bi ci lañ ci lañ ci lañ bàyyi liñ nekk étape fii ñu nekk tey muy Zamfara ñu dépendron ci Sokoto Sokoto moo doon capitale état islam capitale l'islam fii ci li anglophone yi di Northern Nigeria français di ko wax Nigeria euh, du euh, Nigeria du Nord, Northern Nigeria, Ousmane Danfojo, originaire de foute Djalon, Moko Moko Moko, samp Tassara fil Islam awsa yi ñoo doon ceddo yi fii bi fii pël yi ñëwee jëlanteeg ñu jëlante ñu jëlante jabar ci lañ langage bi nga xam de cadi. Euh, yi moom faral di utiliser parce que état du nord y a nga xam ne ci Sokoto lañ basé woon euh, ay Fulani Hausa lañ ñoo ñoo samp réew mi euh, Zamfara state ci boppam defe naa mi ngi séparé wu ci moom bu séparé wu ci Sokoto comme Etaï, mon séparo avec Sokoto, dans les années 90. Alors que vous m'avez que mon ministère à Paro, mon ministre Sokoto, en 1903, Bernard on Amir Abbas, Baye Abdoulaye Bayoro, Midayek Baye, 1903, le Delta Tariq Tidjan, c'est le Kounioua Sherif Jdout, Mouidomi, محمد الكبير Kabir الكبير Kabir au passage dans nettal na maa ngi taxaw ci ben keet bo xamne ne ko bind bu bàyyi il était encore jeune bàyyi xale la woon bàyyi ne dafa dajé Mohamed El Kabir Alawi mauritanien la xariti Abdoulaye Alhaaj la woon mu koy wax na ko Abdoulaye Alhaaj ma yow

بور كانوا شجمنا جوجو جبلو شموم جل شموم طريقة سكوتو مينا خمنا شلين دباندرون مودون بازي طريقة قادرية في نيجيريا موتاخ بي الحاج عمر جاري بمي دف رتورم غناو بمجيجي اج نيو في سجورنا في دف في كالكز jéem tasaare tariqa tijaan au début c'était difficile parce que ñu fi fekkoon ay xaadir lañ te dañu jàppoon ci xaadir ya ba mu jigi mu jox Mouhamed Bello mi nga xam ne mooy doomi Ousmane Dam Fodio jël kii ci la tariqa bi commencé kii noonu mais lu jafe la woon lu toon lu yomb bàyyi nag bi mu ñëwee comme su ma nijaay juñ na ko sànq Ousmane Dam fooju moomu dañu waxoon dafa defoon benn euh, benn dénkaane wax ne maanaam atam mille trois cent soixante dix Charafuddin dana feeñ dafa naa ci pël mooy Charafu Kanko waaw Charafuddin dana feeñ ci Nigéria mooy nekk waarisul Muhammad dana soppi lu bari fi at mom la fi bàyyi feeñ ci lañ ko tertu muy 1951 52 ci lañ ko tertu bu muy wax ah muy wax naan xiina xiina nazaltu sama qad dahaani maa lam yakun wallahi fi xusbaani qad tayaqantu bi anna allaha yujri al umura kayfa ma yaraha surtu aqulu ayna zal jihbizu ayna تعنو له رقاب كل جبزي أين برهام وما برهام حتى فنوا في حبه وهام والله لولا أني فنيت في الشيخ حياء مت لأنني أنا الحقير الجاني والله ما تبت إن أنا حقير الجاني آه، والله ما تبت وإني جاني دواخنا أه عاملهم الله بظن عاملهم الله بظنهم عاملهم بظنهم آه، سوء الصفات وحسن الظرا الوقت دال ني مانام ني في واتي دال ايروبور بيغا خامني افيون بي صاح مانتا واتي موم موي دوزيام موم موي كي في تشيكانو تا موي بور بي انفيتي بور اجي Euh, depuis lors da fait def réalisation yo xamné union africaine ak li ñuy oté intégration africaine manam peuple africain yi gën a li ci bay réalisé depuis le 20e siècle ba légui gisun ken ko réalisé xam nga fi bu passé talibé bay bu ngeen dundoon fi ni nigeria samna na yo xamné xam duñ waxe maanaam bàyyi rek moo leen boole ñuy wax relation ah, bi ci gën a bi mi ci joxe rek relation Yoruba aw Awsa yombut yombut ñoo bokk benn réew mais relation yombut bàyyi ko yombal tax nga gis Yoruba yu bari ñu nekk ci ñu nekk ci xew bi fii nii kon loolu bàyyi ko def dëgg-dëgg am na jàngat yu bari yu ñu ci war a def te itam xam na mbir yi dëgg-dëgg nekkal yàlla rek moo am solo lii du pexe du dara du geni intellectuel du dara maanaam nit la koo xam na yàlla ko may mu oote jëm ci yàlla ànd ak dëggu nit ñu uyu ooteem ñun ñëpp maanaam danaa dégg Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop di wax benn baat reelu na waaye dëgg la daf daa wax mu ne li ñu ñuy uttital bàyyi ci karaama jaruk mu ne maanaam bàyyi am taalibe Haalpulaar doy na ko doy na ko karaama parce que mu ne nit lañ ñoo xam ne ñu gis seen bopp fonk seen bopp buñ nangoo nekk taalibe rek xam gis xam nañu leen ko jaral waaw te loolu li koy gën a findeel maa ngi liir benn texte bu kii defoon nu mu euh, l'auteur de kii ampateba muy wax ci moom muy wax euh, ne mune ne dañu am ben jikko bu ñëwé ci yow ci comme kilifa mu bo boo ñu wacc dangay waccé sa bop le fekkee nga tok ci chaise insister na leen ñu ñëw tok mu ne boobaa danañ wàcce seen bopp ba toog suuf waaye buñ ñëwee nga wan leen na leen kenn ñëwut waxuma la siège bi waaye sa bopp bi sax boo def ndànk man nañ cee toog oustaz dafa leen doon tooñ mu ne mu ne ñooñu nekk taalibe bàyyi rek doon bàyyi karaama waaye loolu yëpp nag damaa gis ne rek sellal gum sellal ci yàlla yàlla nangul ko moo def lii yëpp barhaamu baaun waraun alifun thumma haa